si. wala nga mayoo ma waaw ah, bu <laughs> ñu ñëwaatee démb si match démb bi am na solo aussi pour ñu waxtaan si la Côte d'Ivoire. en tant que pays mais dama bëggoon rester si kii bi après bon je sais pas plus tard mën nañu si ñëw ma dama bëggoon rester si long même. lancé bi allez-y euh, bon c' est par rapport ak euh, match contre le Cameroun. Mhm. Euh, Sadio Mané premier match bi nañu wax flop la parce que gis ko da doon laqatu si si défenseur. non pas eh, mu ngi doon nuyu de. en tout cas il était pas minutes ñu doon xalaat ne Sadio Mané peut être physiquement il tient pas mu dugal bi boo xamante ni c'est un but splendide mm. euh, but de voilà très classe quoi euh, dama la bëggoon laaj boo nan nga gisee performance am par rapport au fil des matchs et yaa ngi wax boobu mooy première bi. Mm-hmm. si match Guinée bi aussi tamit balaa ngay dem si. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire match Guinée bi. Euh, je me rappelle en 2006 Sénégal Guinée quart de finale. quart de finale si si quart de finale Kawa Diawara mu coach euh, coach Guinée bi moom moo dugaloon parce que 3-2 la woon deux moom premier bi Guinée bi moom moo ko dugaloon. démb gis naa conférence de presse comme si quelqu'un bu nga xamante ne boo ko confiant gars yi dañ koy question mu waaye Sénégal mu ne moom premier place bi moom moo leen soxal est-ce que jàppoon ne par exemple match boobu noonu nga xamante ne c'était un match très tendu entre Sénégal ak Guinée euh, que euh, loolu noonu par exemple souvenir yooyu. mën na peser wu si match euh, bu tey bi ba nga xamante ne Guinée dinañ jël euh, mën nañu bon mën nañu wax revanche quelque part Sadio Mané ak. Euh, bon damay damay tàmbali ci saa Sadio Mané xam nga les les les grands footballeurs damay fàttali benn bés pour jël cet exemple. si mhm. si si man mooy football benn match nekk ci kaw di di def nii rek quoi mais dugaluma biir Mamadou Diop booy Dakar. Mm-hmm. il m'a appelé euh, anecdote là il m'a ah non Modou Diop Boy Dakar il ah, est okay. décédé ancien attaquant international okay. du Sénégal il m'a appelé je ne le connaissais pas ne un attaquant il doit savoir se faire oublier c'est très important cest que dans ce match là li nga wax Sadio Sadio Mané euh, il arrive à marquer des ci moment boo xamante ne nit ñi dañuy foog ne presque presque jeexal na c'est son c'est de loolu mooy mooy un homme un jour d'expérience et boo xoolee li mu wax nee na il savait que gars yi dañuy plonger ci premier poteau bi mhm. moo tax mu les attaquants euh, africains africains la wax surtout dañuy plonger ci premier poteau yi mu xaar ko deuxième poteau bien que man d'accord ak moom ak moom foofu parce que boo gisee football en Europe les gens dañuy génn à droite rek centré euh, deuxième deuxième deuxième ligne bi pour que ñu ñëw marqué mais en fait euh, si match Cameroun bi il était dans le tempo il y a des occasions yoo xamante ñun gisuñu ko. Mhm. contre match bi passé y a des y a eu y a eu coupure. am na mhm. am na ay occasions yoo xam ko y des occasions yoo xam ne moom moo koy di déborder ci côté côté gauche bi centré pour euh, pour Habib Habib euh, passe euh, comment dirais-je Ismaïla la génne ko ci biti donc. il est en train de rentrer dans la compétition ndànk-ndànk. Mhm. c'est-à-dire que le Sadio Mané. Mhm. en fait il rassure. quand tu joues avec des des jeunes joueurs da ngay permettre jeunes yi ñu éclater wu d'abord. Ouais. et qu'ils soient dans le bon et il est en train de les couver. Mhm. Et si tu soo xoolee un Sadio Mané ak turam nu mu amee dayoo mooy boot Lamine Camara. c'est c'est symbolique cette image là. dafay wone ne ce garçon là il est c'est l'humilité mm-hmm. c'était comme le comme le premier but de euh, au Barça de Messi Ronaldinho donc ouais, ouais, c'est la, la voilà c'est l'humilité